Assalamualaikum warahmatullahi rahmatullah ñu leen nuyu bu baax di leen jaare ñëwaat ak yéen ci naafila bis bi di 14e mana maanaam guddik fukkeel gi ak ñeent ci weeru koor naafila tey mi ngi nekk juróom-ñetti raaka raaka bu ci nekk fatiha benn yoon isa jaa nasrullahi juróom-ñaari yoon naafila 14e bi maanaam guddik fukkeel gi ak ñeent mi nekk wir raka manam juróom ñetti raka raka bu ci nekk fatiha benn yoon iza ja nasrullahi juróom ñaari yoon wax na ni képp ku ko def mel na ni nga junni dinar leer nga junni ñu xiif goreel nga junni jaam te di nangu say jaamu yàlla te di na musal ci ayu aduna ak alaxira te ànd ak yomal xiyam di nga ràmm limbu bari bu waroon a dugg sawara kon naafila lay ñu koy jëlee ci téré téereb Sëriñ bu Mbacké bi tudd Xuratul Ayni képp ku ci bëgg yeneen i leeral mën nga dem ci téré bobu description vidéo bi manam ci suuf vidéo bi dina fi def ben lien telegram pour ñu bëgg xol téré bobu kon ñu leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal ko jamm jërë ngeen jëf